internet ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di sant yàlla ci ni ngeen di ànd ak ñun lépp li actualité rek tey ñu ngi fii ci Pikine Icotaf Cité fi ji nag mooy Boy Niang numéro 2 tey moo am gan jël doom bi tuddee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñuy ñaan barkeel yàlla na jël ay ci koy turandoo waa axlu bay turasul ñëw fi tey ñu toog ak Boy Niang nag war koo laaj ay ñaari baat rek ñu félicité Boy Niang ñu bàyyi la mu ñëw génne si si alba wañ ko sawati waay ngi sant yàlla bu baax baax ngi nuyu waagal bi waagal di nuyu kilifa diine yi waagal moom Xadim Rasul waagal moom Alaaji Maalik man dañ jaasaan kilifa diine ak kilifa aada yëpp di ziar yëpp di kontaan tey maam bis baax baax ñu ci di góorgóorlu di jafe dinañ leen ci am pour ay njaboot ñu amee ko ngeen sant yalla nek ci leneen daal moo tax mais kontaan naa gis naa Pikine maa gis na xal ci di jàmm yi ko ci suma yi bokk journaliste parce que ñoo bokk liggéey bi gis naa leen maa ngi sant ñëpp waaw. booy ñaar woote ci wuyu si nag lan lay def ci yow. ba dañ ci sant yalla bu baax rek sant yalla bu baax yow bëggoon tudd tuddu bu yam rek bi laay amee ni gaay yu xam nga yëpp ñëpp yaatal ma xam bi bu ko kenn ñëw bi lekkul naanu mo tax ñu def comme baax ñëpp sant yàlla bu baax. gis na lekk naani yëpp bari na waaye ku jub gis te xam naa ne pour jàppaat la du yomb yaa gën a naqari ci àdduna te président bi li jël bëreetul nan la koy ñëwee waajal président bi déedéet doo sax ba déglu doo départ fii bu la gis xam xam naa ne boo jógee fii tey arène nationale la lay gisaatee nan ngay waajal président bi. waaw maa ngi sant yàlla ba maa ngi koy waaj ak samay mbokk samay am di jàmm samay xarit ak ñëpp ñu ma sopp daal xam nga am booy ñaa am na dama la ko sakku dafa dama bëgg làmb foofu làmb fooy làmb dëgg la waaye ba sama la dama si nekk di ma liggéey ma dem waaye yow ma ñëw yàlla may ma wala mu xaj ma du ma ma ma la ma di di ma di na ci ndam incha allah. ndax ñu bëri rek ci ne combat yi yegg na yomb si ay combat la wax. waaw xam nga nag tey moom boo ma bëggee wax noonu laa ma di la doy waar yàlla bu baax a baax ba ma amee tout tànk ma tuddee ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne mooy gën gi mbindeef ma am cofeel bi ñëpp jullit yëpp am ci moom rek ma tuddee ko sama doom maa ngi ci sant yàlla waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax mooy nag foofu laa jëkkee ci yéen tamit tabarkee ci sant yàlla da nga am bis boo xam ne tey Pikine da ko soxla yow ko soxla ko doon gis na li nga jógee nan nga waajee dëgg dëgg seen diggante waaw Pikine da ko soxla mais kenn gënu ma ko soxla quoi dama laa wax xam ne dafa am solo léegi mooy man ma caaxaanee la te bu ma jógee defet yoruma ndam te yàlla moo ko yor mais su ma jógee ci defet mooy ñëwaat rek ak ku mënti doon rek ma daal parce que lépp lu ma manqué woon dama koy di wuti quoi waaw te dama fooy caaxaan def ak waxuma la waxuma la amul sama moom buy def noonu lamb rek buy jox lamb ak comme ni ma ko joxee de waaw bu amee dañ bëriwul de waaw lamb dama koy jox li moom waaw waaw damay nekk su ma war a nekk damay déggal ñu ma kilifa ak samay waaju li ma wax rek ma def waaw sama morom moo dayal di nga xam ne tey nga dëgg dëgg dëgg lépp lu ma war dama def yàlla nag moo yor ndam incha allah ñu ngi ñaan suñu borom may ma ndam bu baax a baax mais Fadel am lu ma jaaxal si Boy Niang mooy leen contre Balla Gaye fii la ko préparé génnul dëkk bi mu préparé Modou fii génnul dëkk bi mais contre ma Omar Kane rek mu génn li nga xam ne mooy réew mi dem Europe préparé yi teel a ñibbi si waat la waaw la combat bu ay préparé combat dafa six mois xam nga sept mois six mois nga bëgg ko toog Sénégal dafay métti donc génn am la foofu mais ñëw tax mu baax mooy fii la contact yi ne fii la dim bi ne. toujours maa ngi nii léegi ñuul naa kooku donc yàgg naa ci dëkk bi. min naa climat bi maa min naa diini ak min naa géej gi ngi bëggante maa ngi def li ma def quoi sant yàlla bu baax baax. mais Reug Reug jëkk mbiru MMA est-ce que maîtriser ko dana yomb. waaw noonu la man moom xam nga defu MMA mais sport de combat la ñu rek sport de combat boo demee ñun bu ñu étranger. bu ñu demee étranger tubaab yi nekk foofu ñu waxtaan ak ñoom. ñu leen ñun day def sport bu ñuy wax lutte sénégalaise. muy lutte avec frappe. bu ñu waxee noonu dóore ñun ko ñun dañuy dañuy dóor menu la ñuy dóore menu uh-huh. ñoom dañuy jaaxle dañ ne loolu mënut a nekk donc amul sport bu gën a violent làmb ay MMA yi violent wul parce que da ngay takk gant làmb rek mooy seul sport au pays Sénégal fii wala ci ngay ngay xeex ak menu parce que tubaab yooyu lépp dafa leen impressionné uh-huh. donc loolu man ngay def MMA loolu sama yoon newa ci man ah. loolu man li ma war a ne maa <laughs> ngi ci allah xam naa fi ma jëm xam naa fi ma jógee bu baax a baax ñu bari na boo ñaa bu xeexee rek mën na am avantage waaye bu dee da dawalee loxoom mën naa bañ am avantage combat bi looy wax ñu waaw loolu damay wax ni rek man tey combat bi rek la ma nit ñi jox bëre xeex man mosuñu ma jox xeex dañu wax ne boo ñaa dafa mën a bëre pourquoi ma ñëw tey ñu ma jox xeex bu ñu ma jox xeex man bëre laay def damay bëre man bëre laa damay bëre ma dama sama benn moo bu ma dàq bëre loolu amul non loolu amul loolu amul loolu amul loolu xam nga ñan nga koy laaj da ngay laaj mbiru simple yi nga xam ne yàlla dogal nañu ñu jege ma ñu ñëw sama écrit ñu ñu ñu laare ñu kontaan ñu bëre ñoo ngay laaj man benn mbër simple mbër jaawul parce que li def nii man def naa ko xam nga dafa nekk rek jamono yi man damaa wul ci lu simple maanaam samp fa de samp wu ma man maa yor def li may def jël ay tournoi jël tournoi day jaay taasen jël ay 72 heures jël ay 72 dem final foofu waaw damaa def li may def rek yàlla dem quoi waaw merci mais sampu ma fa quoi donc ma fa may tuddee mais sampu ma fa mais koo tournoi day jaay taasen la woon ba jël final jël tournoi bi dañ ne jarul ñu lay conseillé nañ la bàyyi sa conscience tranquille ndax bu dee xeex ñëpp xam nañ ne petit euh, euh, nga nekk foofu di compétir avant gars yi nga xam te ni tey mag a doog booy ñaar ci nga xam te ni favori nga xam te ni moom euh, que booy ñaar mi ngi gis bëreetul rek attan loolu damay <laughs> ci mooy damay nuyu waa Pikine boobu nga wax noonu di leen ziar di leen jox seen nu nuyu képp ku fi mbër rek dëkk Pikine ñu bokk maa yow métier bi ñuy def maa lay ñaanal jàmm soo amee bis yàlla na yàlla may ndam bu fekkee amoo bis yàlla nga yàlla am bis suñu mais yaa ngi dégg mais combat xaw ma man amul lu may moot du xeex bi du bëre xam nga su bëggee ñu bëre su bëggee ñu xeex bu bëggee sax mën nañ boo ñaa ñëwaat ci nga ne bu bëggee dégguma de non non ah, ah. ay micro yi taxaw may wàpp gars yi ah, dama ne ñu ngeem bu sore ku ne sànni sore ñu ngeem bëre fu bëggee ñu bëre mbapat loolu amul benn bu bëggee ñu xeex loolu amul benn ndax dama la bëgg a wax ne man daw ma ci dara daw ma bëre bi daw ma xeex kon moom ñetti sër yu mu fas yéene indi ci arène nationale bi ñetti sër yooyu kon jërul ñetti li na benn rek ñëw non loolu rek daa bëri xam nga affaire yi moom ah. saaga yaa xam day xeex la dëgg la xam nga yaa ngi dégg <laughs> bis bi soreetul yaa ngi dégg mbër la may mbër xamante nañ ñu ngi ci làmb ji yàgg na ma gis ci làmb yàgg naa ko gis ci làmb xamante nañ bu baax a baax a baax yaa ngi nañu yàlla may tan ak fekkee moom suñu borom may ko tan ak fekke ak ay mbokkam ma ne yàlla may ma tan ak fekke ak samay mbokk ak waa Pikine ak sama mbokk yëpp ñu daje maa moom arène nationale insha allah boobaa ku ne na xam sa bopp mu ne sa combat rek ko neexee nga may ko mu jàpp ñaari loxo gem ngeen doog a bëri ko booy ñaam pare ne boo bëggee man li ma la mooy man daw ma dara ci bi làmb ji daw ma ci dara daw ma bëre daw ma ci xeex daw ma ci lu bëggee lu ñëwee rek lu mu bëgg rek ñu def bëggee ñu bëre bu bëggee ñu xeex su ñëwee daal at bi suuf mu daw su bëre ñu bëre bu bëggee ñu xeex ñu xeex amul benn problème incha allah ñu ñaan daal mooy suñu boom defal ñu jàmm bu baax a baax ñu fekk ko waaw non boo ñaa bi ngeen doon gis rek waaye tax uh-huh. na faraanoo dama jógee ci bis ah. dama jógee dama jógee ci defet <laughs> xam naa xam naa comprendre leen ma man mbokk maa ngi bëri nga xam ni dañuy wax di waxu reetaan waxu micro waaw wala koo xam ne damay dajale micro yi yaa ko wax léegi sama wax néew néew na du ma dajale micro pour wax wax samay fan spontané yu man li ma la dafa ne ci man lu ma la wax rek mii ci man ba mu naan làmb la dama ko fonk da am fu ma ko teg su ma fooyee bis damay waaj sama mbokk hmm. moom mu xam ko bu baax a baax a baax su hmm. ma fooyee làmb dama ko waaj baax da lu ma jógee am lu ma jëm waaw loolu sama waxu bopp la man na waaj ni mu war a waajee man maa ngi waaj ni mu war a waajee nañu yàlla may tan ak fekke ñu ñëpp tan ak fekke yaa ngi dégg ñu ñëpp ñu day man loolu dama ne làmb man du ma ko caaxaane du ma ko fooye te mosuma dayale mus mosuma fexe dayale ñu gore yi pour damay wax ñoo xam ne sama fant bu ko saanee kontaan non non li ma la dafa ne ci man maa ngi waaj ba baax da am fu ma jóge am fu ma jëm yaa ngi a jóge a defet gars yi di ma xaar samay supporter di ma xaar waa Pikine di ma xaar ma jël combat bi combat bi jël comme li ma waxoon rek am na yeneen combat yi a pare donc xam nga ne ku taamu bëre yow kooku daw bëre bi dawul xeeb hmm. nanu yàlla may tan ak fekke yaa ngi dégg comme li ma wax rek làmb moom damay bëgg di tay ay ndaanaan damay bëgg tay loo xamante ne damay nekk outsider damay bëgg loolu ci làmb hmm. ma am fu ma jaare yow au moins làmb gën ma nangul moo tax damay bëgg di tayal ndaal yoo xamante ni dañ jàpp ne fuñu ma jàpp rek nit ñi dañ jàpp ne wala amateur day jàpp ne fuñu ma jàpp rek day jeex loolu buñ ci yeggee ñu gis leneen incha allah yàlla yàlla may tarak damaa leen sant bu baax maa leen sant bu baax waaw combat bu neex la combat bu neex la combat bu neex la Mansour Ba waaw tey xam nga tey sama bisu ngénte wax loo ngeen ma làmb mi ngi mel ni signaté wala dara mais xam nga waaw. dañ laa jël bi la waaw léegi. combat royal bi combat bu neex la. waaw. ñuy ñaanal koo tëgg muy maasu ba yàlla defal ko jàmm bu am si réussite totale di ñaan ñaari mbër la dafa leen jàmm ñu bëre ko ci jàmm incha allah gën a meer bu neex la ñu koy félicité bu baax dafa ñëw yokk laamu mais wàññiwul a laamu kuy ñëw tëgg combat roi yàlla dana war a encouragé Mansour ku baax la yàlla na ko yàlla defal jàmm ak promoteur yëpp ak promoteur yëpp Baye Ndiaye Aziz Aziz Ndiaye ñooñu ñëpp ay promoteur alburax xam nga gas magan di nga ko maa ngi koy sant a ñëpp ñu fi teew Fallou Ndiaye ñëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp